Khalifa Khalifa Thank you. kër si janna man yow yaay borom léegi maama Xalifa Baaba kër si janna man waa kër si Baaba kër daan nga Baaba kër si janna man waa kër si Baaba kër daan nga Baaba kër si janna man dafi bëgg maam Xalifa bay daan nga Baaba kër si janna man dafi bëgg si Baaba kër daan nga kër si njalu na nga dem bayu baale daan nga Babacar si njalu na ma ne xutubul xaali xayni daan nga Babacar si njalu na loxo yi baytal masari daan nga Babacar si njalu na bëgg si Babacar Si jugal taxaw Babacar Si dal naa la ku ci bëgg sëñ Babacar Si jugal taxaw Babacar Si dal naa la Babacar Si Babacar daan Babacar Si dal

مدد مدد رمتل إذا رمتل مدد رمتل مدام خليفة بابا كرسي جلنا يا سنقب بارم ليري مام خليفة بابا كرسي جلنا نم يرون لما نام خليفة بابا كرسي جلنا نم غضب الخافقين دانك بابا كرسي جلنا نم وي بين المسلمين

الدفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد لواني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن الأوجان يا سيدي يا سيدي يا سيدي أم الكتاب بقدر القرآن ثم الصلاة على النبي وآله من ربه في ربه الحنان ما قال أحمد التجاني المرسدا فإليك يا ابن محمد ناداني مولم ولي من نونا لنت يلا بباخ جناو بجايتنا الشيخ تجان أنا تالي بشيخي دفلني wala wali man naw naa leen ca yàlla bu baax gannaaw ba jaayante naa ak Seexu Tijaan yéen gaa yi seex yi xanaa lii doy na mbégte xanaa lii doy na tegtal xanaa lii borom sàggar yàlla borom man ca li yow dëgër ñàkkuur sàmman ju mat ci tuumal ci génn ku lu bëgg dara man dara loo kumba caam Aliou ba mbay naan ci wàllu sàmmay naan cogo ci naan garmi garmi jàmbaar ci sëriñ ponkal ki yëy ki bataale yi ñanguuru saamam ñu mat ci ana soppi sëriñ Babacar moo tax kenn du moom sëriñ Babacar nee ku ne di la plongé ci man ngay nii ne jarul wax ji bari may tànn sama émission ne nan leen liggéeyal leen ma ci sama tarixa dama bëgg ñëpp aw li may way salli abi sallu ala nabi ahmad nañu màggal si Babacar mi nu wóor léegi yéen laa bëgg ngeen aw ku aw لنا بها مثل بغن أو لنا بها مثل كيتي دم بكو بصو كتول مالك وجهكو تدل تكيول جنباتل دو خستي دو lu ko waay wax mu bàyyi la kii Lord. naan ko yow Serigne Babacar yow maa ngi ko ñor a baax yàlla woon ko si woon sa baay ku la woo nga wuyu ko ne nga tukkoon fi bu ko jëlee xaw ma fu ma jëm yow Serigne Babacar damaa bëgg nga wallu ma ci barke Cheikh Tidiane bisaa ci bi jëlee nga nii jëm si kii bëgg a jëm gannaaw bi ba mu war du photo bi dara ci doog ko sàcc bi sàcc ba yuuxu yaakaar na yéen lañ ko dóor mu doog bàyyi fa bagaas yaayam bàyyi fa daal yi daal ndaw si naan ko wooy sama maam seen maam Serigne Babacar si wàllu ndama ana waa kër Serigne Babacar ah di ak Bakar

ci sëñ Babacar Si mbay naa àndal ku la way naa néegal ku la way naa néegal fallu ana falloy borom ndindi sëñ falloy borom ndindi fi bëgg alaaji fallu ana ñi falloy borom ndindi sëñ falloy Hallelujah. عبد العزيز خليفة مع باكر Thank you. الجنود ننادي باس يتيرنا Thank you. ki may bëgg way mooy amiin ca Tiwaawan ana soppi Mawlaay Abdul Aziz bismillaahi may bëgg way waa ji jar di way abadan boo xamul ki may bëgg way mooy amiin ca Tiwaawan yow la muy jiitaroo yow la muy leerloo yow la muy damoo fu nu jëm waay di la way biir ci waawan damay ñëw damay tuuti desaan këru diine yi bu sañoon am ku mel ni yow Sëriñ Babacar Si ñu la tànnal amit ci waawan

jàngoro yàlla na ko yàlla saafara ku bëgg borom kër yàlla na nga am balaa déwén ku bëgg soxna yàlla na nga am balaa déwén ci barki ki fi yor cër yor ami dooga yori sa cant ci biir Amen. Seydi Laahi أنا واكر ألاقي فل أنا واكر ألاقي فل كلي نجوم أنا واكر ألاقي فل أنا واكر سير سالي الماء الكرسي ويس الوسيلة كانت جو وقلب مع من سبق من سبق خلف مع من خليفة بابيرو أيسير عبد الحميد خليفة بابك ثم يجلو سكن ما خليفة بابك دبر جنو خليفة بابك أندر ميدان جانا باي باي أمنا جيتان يوم القيامة fa la ñuy jóg di waxtaanee pour di dal ndax mu ma am yow laa doon seet jàpp naa la daana di dal pour di dal pour di daana di dal pour di dal waaye daana di dal pour di dal waaye daana di dal loo waa loo daana la wàcc si waaye daana la ko ca kaw ñu mag doon mooy

Thank you.

xalifa mbay kamal la lu ma di naa gannaaw kamal la ee kamal la yow kamal la dundal nga ci dégg daana di kam tu ma jaani ko daga jete kena fo watu ma mangu la Janulay so, janulay so. بسم الله ما يبقى وي واجي جرتي وي ابدا boo xamul ki may bëgg way mooy amiin ca Tiwaawan ana soppey Mawlaay Abdul Aziz bismillaay may bëgg way waa ji jël di way abadan boo xamul ki may bëgg way mooy amiin ca Tiwaawan yow la muy tiitaroo yow la muy leerloo yow la muy damoo nu jëm waay di la way biir ci waawat dama ñëw turu diine yi bu am ku mel ni yow sëriñ ñoo ba kese ñu la tànnal amiin te ci

aajo yal na yal na ko yàlla saafara ku bëgg borom na nga am balaa déwén ku bëgg soxna yàlla na nga am balaa déwén ci bi fi yor I will قريبا ما بين الأرض تبدا يرجع أمين يرجع ñu koy yemale boo xooloolu wala xooloowul waaye Moustapha di nga xam ne maa gore di nga xam ne maa la bind te nga xam ne maa mën a fay damay bàyyi ba ëllëg ba jaam ñëpp taxaw ci sama kanam ma door laa fay rasul ni ko foofa la ma soxla mooy ku ma sopp nga yóbbu àjjana ku ma soppul nag ma bàyyi laa moom daal di jub ko yëpp yàlla Muhammad ñu wan ko benn porte na bi ubbi porte xool jëmm ji jëmm ji suuf ko dàq ko wëlbati ko ni yàlla yaa waxoon ni loo bind loo bind maa ci dàq yaa waxoon ni loo bind maa ci gën a a te kii ma fekk ci biir moo ma dàq moo ma gën a moo ma ëpp jëmm yàlla ne ko ki nga fekk ci biir mooy sa jëmm lii nga yor sa takkandeer la yow Muhammadu Rasulullah looloo tax Moustapha daawul am takkandeer ndax takkandeer la moo wàcc ci suuf te takkandeer bu am takkandeer looloo tax yàlla Muhammad Moustapha am takkandeer jëmmam wàccul ndax yàlla nee na su ma wàccewul yonent ku ko teg bët say bët toj te bëgguma woon noonu ay jaam moo tax ma wàcca takka deeram sëñ Moustapha su ma dekkalee jaam yi danaa la naa la de su ma dekkalee jaam yi ku la bëgg ma yóbbu ko aljana ku la bañ ma yóbbu ko safara lu mu ni maa leen bind nit ku nekk benn jëmm la jëmm ju nekk benn dënd la dënd bu nekk benn xol la fa ne te xol bi lenn laa ci soxla mooy nga soppal moom Muhammadu Rasulullah soo ko soppee rek ma yóbbu laa àjjana boo ko soppul ma seetaan la yaa ayyuha nabiyyu ittaqullaha wa la tuti al kafirina wal munafiqina inna ma kana aliman hakima wa tabi ma yuha ilayhi rabbika inna ma kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal ala allahi wa kafa billahi wakila ma ja'ala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajukum allati tuzahiru minhum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al haqqa wa huwa yahdi sabila ad'u li abaihim wa aqsitu inda allah fa in lam ta'lamu واعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما ابتدتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما kii ma leen di nettali moom la yàlla xool ba mu neex ko mu naan ko bu gaa yi laajtee mu ñëw ndax defaloon nañ ko sa maam li am yëpp man la te maa koy def maa def zaalika kitaabu laa rayba fiihi hudan lil ربهم لا يكونوا مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنفقوا أم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر هم المسلمون يخادعون الله والذين والقابل هو الوحد الجليل والفرد جميع الانبياء والمرسلين والذين كانوا نبيا ورسول بالمؤمنين وشفيع المؤمنين وسحب الحوض الموعود ومقام المحمود وشفاعة المصطفى كريم من كريم أباؤه كرماء سيدنا محمد jërëjëf yaakaar naa Abdou Aziz Doucouré yàlla la yonent bi téyel boppam tabarakallahu xaal bi ngeen ñëwee macha allah anniversaire bu du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tombee anniversaire suñu xarit ku sopp yéen tamit di El Hadj Ndiogou Mbaye kon yal na ko yàlla fan joyeux anniversaire ci barke bu di gàmm suñu mbokk yi taxaw Cheikh danaa lay jox rek nga sant Aziz comme li nga ci turu xalifa daanaka ko ci teg ko ci loxo Masaka. mooy jural doom dem safara te doom jooju nga tuddee yonent bi ku mu kalee baax teg ci siin ku mu romb jox la loxo yàlla jéggal la ci barke Muhammadu Rasul si wal mahabbati wa taali wa saay jofeel googu yàlla soxla ci yonent bi rek nga ko mën a jaar si wal mahabbati wa taali daa nekk leer boobu yëpp yàlla Muhammad yàlla préparé ko leeral boobu ñetti façon yonent ñetti façon rek am ci Muhammad mooy Muhammad rasulillahi muhammadul insan ak muhammadul nuuru muhammadul nuuru alaji malik nee na yàlla daa téye muhammadul nuuru ci ja ci jamaal yi ndax ci jalaal yi lay jugee dem ci jamaal yi yàlla programme jamaal yi wax ko kun xabibi yi fa yakunu muhammadu rasulillahi mu jëlee ko ci ci nuur googu yóbbu ko ci muhammadul insan booba la nekk bindeef il faut que mu juddu te pour mu juddu faw mu am ndey faw mu am baay yàlla tànnal ko ndey tànnal ko baay baay ba di abdullahi ndey ja di aminatu abdullahi foot Aminatu zéro foot ñoom ñaar ñu boole leen ñu jur Muhammadu Rasulillah ñu la Cheikh Mali mu ne keroog ba yàlla tànnal baay ba ndey da koo tànnal Amina keroog ba yàlla tànnal ndey ja baay Moustapha baay da koo tànnal Abdullahi Cheikh El Hadji Malick nee na Abdullahi zéro foot Amina zéro foot li kay yu sayiraha satfar li durratihi Aminatu naqiyat an saa'iri tuhami ci gàttal soo ko bëggee dégg da nga naan Amina la ñu tànnal yoon ci yàlla Muhammad Amina moomu war koo jur El Hadj Malick Amina amul luñ ko mën a tuumaalee Moustapha Abdoulaye mi war a baayam zéro faute Abdoulaye luñ ko tuumaalee soo ko nee fii ci jamono bi ñu toll da ngay wax ni Abdoulaye am ger dama ci jamono bii ñu toll naq yeeg ak saa yu di tuxami am ger waaye aminatu naqiyat an saa'iri tuhami amina mësta am far ku mësta am far ak ku mësta am gel bu ñu leen boolee war nañoo mën a jur muhammadu rasulillah am déet kii mësta am kee mësta am ñu boole leen ñuy ñaar ñu set alaaji maalik bi kii war a jur la mooy yor ci yàlla muhammad guddi ñu jël abdullahi jox amina abdullahi xëy liggéey mooy xëy dàq ci wërsëgam Aminatu wan na lor li ci biir mooy leeru Muhammadu Rasulillah leer googu nekk ci biiru Aminatu Amina ànd leer ga waaye xamul ne leer gi ci biiram leeru Muhammadu Rasulillah xam nga gaj la ko xam biñ ko ko waxee nit ku nekk su ko dara arrivé lu ni mel moom mën na ko yëg mais bu dee Muhammadu Rasulillah nag bokkul ak ñun moo tax moo tax bi ko arrivé moom Aminatu xamul li xew te Cheikh loolu daloon Abdullahi ci Aminatu moo dal Cheikh Al Hadj ci soxla Roqay Njaay Njaay Cheikh yéen nga ni Al Hadj na leeru leeru sëñ Babacar lu yàgg yéen ñi leeru sëñ a ngi ci moom maa la ko ñëpp am cër. mais xalifa nag cheikh ku ne xam na ni roi des arènes am na mais l'empereur bi ah Babacar Seye l'empereur bi <laughs> àttan leeru Cheikh Seydi Aboubacar Si Pape yëg nga ni Babacar Si du ñëpp ko mën a jur Cheikh Seydi Aboubacar du doom du ñëpp mën a jur moo tax maam nga ndab lu Babacar Si war a nekk nekkoon problème ba mu dugg ndax xam-xama ko yóbboo ndax jàng ak jàngale ak jaamu yàlla keroog bi soxna Rokhaya ne dégg bëtam ci Alaaji Maalik la yëg ne leeru yont yàlla leeru Alaaji Maalik ji ci moom moom soxna Roqaya àttan na ko moo tax la waral seen diggante soxna Roqaya bokk na ca la ko dox moo annoncé wu moom soxna Roqaya wax benn càmmiñam ni ko bi may dugg tey ci kër gi romb naa benn mbooloo am na ku nekk ca kanam di leen jiite ñooy julli mais góor gu leer alquran te rafet na ko càmmiñ bi ni ko lu xew nu mu tudd mu ne ko xaw mais ku leer alquran la te xam naa ne ku rafet alquran la te sax góor gu njool la may nuru waaye ginnaaw la ma wan càmmiñ li daal di muuñ ne ko. si xewal la gàmmu ku fi gàmmu ci yow la ko gisee yaa Rasulallah yaa jaabaka si xewal la gàmmu ku fi gàmmu ci yow la ko gisee يا رسول الله يا يا يا Amen. lay jéggalu bu wér ci kanamu nit na ma waaw kay ñaan mu ziyaar ziyaar naa la Wolof day wax ni na mu doy ci daat عاش محمودا ومات محمدا فكان عاش محمودا ومات محمدا ففي حالتي يهدي وفي حالتي يقري nee na Serigne Babacar Sy mooy koo xam ni fakkan as cama ngi nii koo xani ange dund na moom Serigne Babacar Sy mahmudan di ko yàlla gërëm wamaata muhammadan moom Serigne Babacar Sy mu génn àddina yit di ko yàlla gërëm ndax Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na keroog bi Serigne Babacar Sy génnee àddina ñu teg ko ci kanamu karo bu ñuul boobu ngeen di gis ci kër Serigne Babacar Sy Serigne Cheikh nee na ñu jullee Serigne Babacar Sy bisu altine yóbbu Serigne Babacar Sy ci biir xabroom Serigne Cheikh nee na mag ñi ko jàppoo woon di xoolante ndax kenn amul fitu jëm jëmmi Serigne Babacar Sy dugal ci biir suuf Serigne Cheikh nee na ma ñëw ni mag ñi Serigne Babacar Sy nii ngeen di bañ a dugal ci biir suuf fekk na ci biir suuf ku ko gën te ma Seydina Muhammad Serigne Cheikh nee na mu ne dugal leen ko ci biir suuf ñu dugal Serigne Babacar Sy ci biir suuf Serigne Cheikh nee na ma ñaan ñu toog ci salle bi jàkkaarloog Serigne Babacar Sy ci laa yuuxu ne Abu Bakri wa in kaana fil abuna wa in kaana fil qabri rabbina bi la ma doon am am naa ko ba noppi jaayante na ak yow te du ma ko fecc mukk ba ca kanam Alaaji Maalik ba tax taalibe Cheikh suñ la laajee yow lan nga nga yéex a tontu ñu ngi werante sa tiijaan taalibe Cheikh ñu ne la yow lan nga bett la rek ne la yow lan nga nga naan kan

Rasulullah هو المصطفى المختار وهو bu njëkk bi Serigne Mansour nee na góor gii nee na saalu sëñ Babacar boo duggee da ngay fekk kajoor kajoor yi toog am lu mu wax teral bi laa ka teral bi laa ka kajoor jaamu xanaa fii amul kajoor kajoor teral bi laa ka kajoor njàmbur wa fuuta jolof njàmbur fuuta Jolof ana ñaata ñaata bi. Njaabu. wa Fuuta. wa Fuuta. ak Jolof. Jolof. Saalum. Saalum. Bawol. ana Saalum Saalum yi. Saalum. Saalum. Bawol. Saalum Bawol. waa Gabon. As'al luqiya. sëñ Babacar Si nee na li ñu naan sàmm mënul kanamam mën gannaaw nee na bokk day wax même ci kàccat Serigne Babacar Serigne Babacar mën na kanamam mën na gannaaw Serigne Babacar Sy. élection daa jot am ku ni wax la leen gëj ca loola jamono am ku ñuy wax Senghor ca yooyee jamono Lamine ak Senghor ñoo dem élection Lamine Gueye jox rendez-vous Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy ko xaar Lamine Gueye ñëwul yëpp ni Lamine daa fausé rendez-vous Serigne Babacar Sy Senghor taal otoom ne Serigne Babacar Sy catholique mais gëm naa ne loo ñaan yàlla ma damaa bëggoon nga ñaanal ma ma gañe élection yi sama digganteeg Lamine Gueye sëñ Babacar Si ni ko tàllalal sa war tàllal sëñ Babacar Si ñaan ba mu yegg ne ko bul ñibbi jubalal Touba te boo demee daa fa fekk ku ñuy wax Serigne Fall soo demee ne ko Babacar Si man la ànd ñaanal ma mu dem fekk sëñ Fall mu mu jox ko loxoom ni ko sëñ Babacar Si ma fi yebal nee na naa la wax ni élection yi man la àndal sëñ Fallou ni ko tàllalal mu tàllal sëñ Fallou ñaanal ko ni ko mbër mu Babacar Si ngemb man Fallou mënuma ca lu dul jox la Senghor yi ca yooya jamono amoon réew mi bi mu déggee ñu ne sëñ Babacar Si dana fal Senghor wàllu si moom dana fexe ba jinneem yëpp mu wutal leen ay carte électeur bu élection yi jotee ñu voté la leen Gueye mu tuxal waxu sëñ Babacar ñu ñëw fekk sëñ Babacar ci balcon bi nga xam ni moo doon bind di boole français wolof waxay suma laqaytu minhum wahida yaqulu mais eh yaqulu shahida ebe lada widaa'ihim ma'ruufun sii sii wa wëy lada taxqiiqi qawlun wa amal wa zaaka dabun musbitun maa parce que wa saddidi lxadiisa lafsu est-ce que sëñ Babacar Si ne d'accord yor na ay jinne mais boo ko laajoon ñetti fan gisul jinne yi ndax man Babacar Si bàyyi Cheikh Tidiane Mansour pire naa jigéen ñi ci sama partenaire te duñ génn ba élection yi jàll. bëri bi génn te gaale wul ki mu doon doon mooy Ababacar. bëri bi génn te gaale wul ki mu doon doon mooy Ababacar. yàlla fa man bay naa sama ak ki mu doon doon mooy Ababacar. yàlla fa man bay naa arde ki mu doon doon mooy Ababacar.

sakkan ci baabaka ana soppee bay aale njaay wañu sakkan ci baabaka ana ñi bëgg sëñ Babacar Si wañu sakkan ci baabaka mbay ku ci sakkan ñoo dem mbay ku ci sakkan ñoo dem bay ku ñu sàggan ñoo dem bay ku ñu sàggan ñu di génn tibi ku ñu sàggan ñu di génn tibi ku ñu sàggan Tiwaawan gi ku fi dul ñëw Tiwaawan gi ku fi loxo ca kaw Tiwaawan gi ku fi dul ñëw Tiwaawan gi Tiwaawan gi Tiwaawan gi Tiwaawan nu jóg leen mu waaje li guddi yonent bi nit bi su bay aale njaay bi day romb ci bis day romb géejal fajar ci waawan gi wadu faal ci waawan dëkku leen ci waawan gi caam ci waawan dëkku leen ci waawan gi fatan aasha mahmuda